amene ki canta ne ki tijan ñu ñaar damay nek talibé sona ayda nek talibé sis ma ko ñu ñaar xamne suma dé damay def aljana bu gaaw gaaw duma sax xaar ñi naan la defo boko waye damay bokk ñaar yëp ndax man ni ma nekké ni suma jébulu fu Pas kali dé dok la dia dé parce que Dia waxi lu masak. Ayo té fa ba mus damay te nit moom day xool leeramu xanaa xamoo leeramu sa fii lay feeñ booy lekk rek jàpp na yaa ngi àjjana fii da ngay lekk mu may taaliba yi jeexuñu de ñoom ñëpp am doole ñu ngi jeex teg ñuy jabet ñuy góoróbët ñuy doxul siti mais ñoom indee àcc ko kenn rek laa ci gis bu ñaaw waaye kooku daa am doole boo tax mais ñooñu ñëpp il est mignon il est ki liggéey ni xam naa ne ndeyam liggéey dem ba àjjana gis ko fa kii ndeyam liggéey na loolu kii kii tund ni ndeyam liggéey na moo tax man sama waxi dof yooyu moo mën a yóbbu àjjana ci kër soxna ay dara maa ngi ne kër soxna ay dara tëdd ni di salone jàpp sama ñaamul tiim jaxasuma kenn yàquma deru kenn man daal ku ma jox lekk ba wax jox dama lek, maa ngi wax dama jaxase kenn kenn àdduna diina yëpp nit moom boo nekkee ci ñëpp la lay suivre man dama invité pour ma ñëw lekk c'est filaayam waxuma lu bon defuma lu bon jege ma kenn na kuy natt sa xati ma ku dee di ay kalaan sa tourné gis nga banaan sani tourné gi pam vian tourné gi eh